vous devez vous offrir la possibilité de parler aux opposants et de parler au pouvoir xam nga yéen peut-être que def ngeen erreur gis nga sa discours bi doon na doon rafet trop nga dem taxaw diggu palais de la république nga wax mag nga wax nga wax ak Macky Sall parce que Macky Sall Macky Sall a hérité de votre combat xam nga pourquoi demaatuma palais justement bi mbas mi ñëwee Covid le président Macky Sall il a appelé à une union sacrée autour de lui je me rappelle man la veille euh, de suñu dem pale euh, Racine kat moom am na ku ma woo daf ma woo j'ai même pas demandé l'avis des Y'en a marristes d'habitude des décisions comme ça elles sont concertées mais tout de suite j'ai dit oui et après j'ai rendu compte aux Y'en ñu ne ma li nga def mooy yoon réew mi fa la tool demal je suis allé avec Thiat et Astou ñu toog ak président Macky Sall c'était la première fois après euh, l'élection de Macky Sall que ñëw mu recevoir ko comme ça et on a eu des discussions et notre principale préoccupation l'une de nos principales préoccupations ñu ne ko président woote nga ñëw nañu c'est la première fois Y'en bi ñu la falee mu ñëw pale ni Euh, mais dañu am préoccupation ci mille milliards yi nga wax ni dañu koy mobiliser pour xeex Covid bi euh, dynamique bi nga créé ba sa opposition yu gën a radicaux sax ñu ñëw tey biir pale La pérennité de cette dynamique dépend des actes de gouvernance que vous aurez à poser à partir de demain ci xaalis boobu mu dem fi mu war a dem sénégalais yi ñu yëg ko mu ne ah loolu moom ah non no non gouvernance truc d'ailleurs damay créer xawma lan tout suite balaa maa kii ñu ne ko baax na ñun daal na tegu ci yoon tant que mu ngi tegu ci yoon vous vous tu nous auras à tes côtés ñu jóge foofu tout de suite artiste ñu def si artistes yi ñu def single pour zéro franc ñu dem ñu won ko ministre de la santé ñu déglu ko valider yenn message yi et nous on a diffusé pour zéro franc produit diffusé pour zéro franc et ñu nekk ci biir tali bi di kii di promouvoir di ci nekk mais on voit déjà quelques jours après il commence à y avoir euh, des kii sur la question de l'octroi des des marchés de riz ak yooyu ça nous a fait tiquer on a alerté on a tout de suite monsieur le président attention ñu jóge ci loolu dawal dawal dawal ñu ci bëri yu ci bëri mu ñëw sur la gestion ba ci rapportu cour des comptes bi mu ñëwee mu wane ni ndekete yoo gars yi dañu caqar caqatee suñu xaalis mais un coordonnateur un, un mouvement comme le nôtre qui s'est senti aussi désabusé par le président de la République sur une question aussi importante tu penses que kooku bu ñu woowatee pour des questions de dialogue euh, est-ce que en fait wóolu wuñ ko da ngay dem waxtaan ak ki nga xamante ni wóolu nga ko wóolu nga kàddoom parce que demoon nañu mu am yuñ ko wax sénégalais yi bëgg ko seen xol mu jéggi ko rapportu corps de contrôle bi ñëw wane ni ndekete yoo contrairement à engagement yi mu jëloon face à nous au palais bi ñuy dóor di ñu tëj di tëj suñuy yaay ndekete yoo ngi dóor suñuy milliards ba suñuy milliards du rees mu juddu si et gis nga aujourd'hui qu'est-ce que c'est devenu d'ailleurs le procureur de la République au gré d'une sortie sur Ousmane Sonko les rebelles il commence par ça ñu ngi déglu ñenn ñi fan la mujjee est-ce que yow mun nga ma wax ce dossier sur nos milliards du Covid fu mu mujjee. ce que je sais c'est que y a des y a des y a des DAGE qui sont conduits devant la chambre de discipline financière. léegi yow donc premièrement. donc kooku bu la woowee ay dialogue honnêtement Y'en a marre dañu xool ñu ne vraiment on n'a pas confiance